bu ñu takkee ci réseaux sociaux ci internet lay tasee ndax bi lay sëy mat na ñetti weer yaakaaruma ko de diggante Ayo ak Omaro jeex na tàkk sëy bi tas na kilee di Ayo Balde wax na génn na confirmer divorce bi ay wax yu ñaaw wala Ayo yëkkati teg ko ci kaw deru Omaro ci ay kàddoom li waral divorce bi mooy kilee di omoro du jug ci di ko teg naqar ay waajuru Omar bëgguñu ko ndax kilee di yaayu Omaro daf ko woo ba mu wuyu ko mu ni ko na divorcé ndax Omaro amul lum ko yore tegal ko ci ay xas yu metti ne ko doo jigéenu sëykat Ayo Balde dolli si ne Omaro amul jotam jotu Sidi Diop la am ndax ba tey ci ay kàddu Ayo kilee di Omaro dafay bëggante ak di Diop ba ñoom ñaar am nañ lu ñu jot a sekk ay accusation yu doy waar yu ayoo def ci jëkkëram bi ci di Omaro ba fi ñu toll nii nag li coow li di bëri yépp dégg guñ nday mbile gi di Omaro yooyu ci yàlla